asalaamaaleykum wa rahmatullah suñu mbokku téléspectateurs yi ñu suivre ci Equivox TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar xam ngeen Babacar nag ak waa làmb du man a ñàkk te nit ki boo ko xeebalee bésam rek da lay daal di xeeb ndax am di Moustapha ngeen xam ko bu Parcelles am di Moustapha bu Njaay production bari na bu jam production bu la neexee wala bu parcelle wala bu promoteur yëpp moom moo xewle tey dañ ko may soxna boole ko ak ngénte soxna si ñëw andaale bébé macha allah yàlla na bébé gudd aw fan tey nag tam daa bokk ci gétt gi xulle ku bokk ci gétt gi da ngay naan ci même ndax nag comme ne ko duñ xeebal kenn bésam gaa yaa ngi ni gis naa fi waa groupe baax gis fi waa jeune amateur gis fi sax ay mbër seex a ngi ni waa xew-xew lamba ji ba tey lépp ci benn la seex bu mbay gu gi maa ngi lay bégge ziar naa la Babacar lu waral sa teewaay tey ci ngénte ci ci xew bi sama teewaay tey fii am ni Moustapha si moo ko waral dëgg yàlla doon nit ku baax yàlla baaxal loolu moo waral mooy seex bu mbay maa ngi lay bégge waaw waaw Babacar maa ngi lay ziar xiir la alias lamb ah, xiir gaa ngi nii wallaay bu bu bu bu fële nu mu lamb waa ana max max ma ngi mi ngi fi mi ngi ñëw max ne daf maa génne na ñëw ah déet def na lu ñaaw daf maa génn dañ maa génn waa xew-xewu lamb ji de nañ ma def maag Lamine maa lay dugalaat du yoon mais tey lu waral teewaay bi waaw waaw teewaay bi nag suñ doom day moo ko waral am di Moustapha Baye Fall borom baa la wax dëgg yàlla ñoo ngi xamante ci xew-xewu lamb mais dara ñaawul daal billaay dara ñaawul dara ñaawul fu mu toll day defar day defar kii mooy Aliou Faramare moom soppe Wally Seck. Kara Babacar ñu ngi lay siyaar. ci loolu ana waa Saalum. waa Saalum ñëpp a ngi si jaaw. teew nga ci xew. waa sama xew rakk la. am sama rakk la ju baax. waa ñu bokk dren nag. Ah. waa sama mbokk la sama rakk la. daa mel ñaar ñëpp a bokk Saalum. waa ñoo bokk Saalum doon ay doom baay nag. mbokk àqanti man. et puis mu doon nit ku baax. am di sonn ci nit. doon nit ku bëgg mbokk tamit. Eh, sonn ci parcelle gi tamit nag. kon bisam daal ñëpp a ci war a teew waaw ñu ngi koy ñaanal sëy bi yàlla suñu borom boole leen sëy yàlla taxul baax a baax a amin waay amin maa ngi lay bëggee Blindé waaw la xàmme naa ko ñu ngi lay fay bu baax a baax am ngaa fi waaw sant yàlla bu baax da ngaa raar ñàkk ndax échange raar a xew quoi ndax dara amul dara amul fokk ñu toog nekk suñu ruq nekk suñu bopp comprendre nga yàlla jële fi feebar bi ku nekk reprendre activité yi quoi waaw am di Moustapha sa digganteeg moom waa am di moom li ñuy wax si moom du bëri quoi ndax suñ naree nekk si di wax si moom duñ si jógee am di dafa nekk kenn su ñun ba pare ku xewle ku nekk day mel ni moom moo xewle loo tax moom su xewlee ñun lu ñu jàppoon ne dañ koy bàyyi ñëw teewal ko waaw ndax dafa nekk nit ku baax nekk nit ku modéré nit koo xamante ni bon yëfu jàmbur moo lay tardé fu ne maanaam yëfu jàmbur jaral na ko daal jaral na ko xeex looloo am solo maa ngi lay bëggee Blindé kilifa gi waaw Babacar tur bi man tarkindaa bi wala dofu tonnerre doomu nday koña deux bébé lakkale. ndeysaan ngay fekk kolobaan. ah yaay borom kolobaan. waaw maay borom kolobaan maa ngi nii. borom kolobaan. waaw. defe naa kon tey yow it boo teewee war ngaa teew ci xew am di de kon. am di Moustapha sama xarit la sama doomu nday la en plus Baye Fall la wax dëgg yàlla yëg yëg a koy fay te am dafa yëg ñëpp doon Baye Fall pire barke Serigne Touba day dagg place ñëw ba sama place cherché ma ñëw ba sama gaal ma ne la may def noonu kon su xew la fokk ñu donte dañoo ne si corona tamit foog ñu ñëw teew waaw yow itam jàmm ci yow rek Babacar doomu Ndeye Lamine. loolu la yàlla doon yow yaa fi ne. mais yow looy jaay man ay yére li ma sol yëpp maa koy jaay. kon man de man de gars yi ak may sol te gisaguma la ci sama gisaguma. Jili Baxdaad boo ko nee ana place dafa tonel wala ana tarkina dina leen di ba sama place. loolu loolu dañ koy. waaw dañ koy coté yow ñoo far yow. waaw jaayee ok tarkindaa tarkindaa yi nuyu Siteu xam nga boo nee tarkindaa faw nga nuyu Siteu sama gars yi di bëgg. yow da ngay dund Pater dama koy seetaan tuuti tuuti rek. am daal da ngeen a seq kóllëre moo tax nga ñëw. waaw Moustapha non sama doomi bàjjan la nag waaw yaayam ak sama papa ñoo bokk benn papa quoi. ah Saalum nga jógee. waaw Saalum laa jógee. Saalum. waaw ci Saalum neex na. ah macha allah que Bawal dàqul Saalum. non non mënul nekk. <laughs> eh Assane na ngi waaw na ngeen defa ah. yow dañuy déggante. dañuy déggante lu bari. naka yëngu yi. waaw moom sama doomu bàjjan la. waaye man moom sama doom bàjjan bu baax la bu ma yëg la. amul lenn loo xam ne maanaam mi ngi ciy dugg rek te déggoowuñ ci di ko ñaanal yàlla xewam bi yàlla na ko si yàlla defal jàmm njaboot gu góor ak gu jigéen juddu si yaara bi. maa ngi fi maa ngi nuyu wax sama mafia nag mafia Roubé Ibrahima Kanté Daouda ah Daouda Ngom Aliou Dramé Baye Zal. la moom. non Daouda Ngom sama waay la borom baax la. a na nag borom baax. kay de. yónnee fa ay teraanga

am mi ngi fi di baax rek. yaa ngi waajal la. pare nan pare nan. Ah. pare dina ko wax. nay wax ñu ñuy jëf. lag wax kat la. la woon fa rek. est-ce que na di demee. la woon fa maa la ko wax. yaa wax lii maa la loolu. baax na la woon fa woon. yàlla jaajëf. Mor sax Equivox. Mor macha allah. waaw Babacar <laughs> Babacar. catuwuma la nag waaw ñu ngi lay nuyu waa di nuyu Vox Arena. waa di rafetlu lu sa teewaay tey si. ngénte am di Moustapha bi waaw ñu ngi koy rafet bu baax a baax di nuyu monde làmb yëpp waaw ñu ngi nuyu gaay yëpp daal. am di yow defe naa war nga mën wax ci moom de parce que defe ku ne moor ne am di. waaw am di xam nga rek dafa nekk xale nekk suñu biir waaw nekk doomu parcelle bëgg parcelle tamit ñu bokk benn couleur bi ñuy xeex moo tax lépp lu mu xewle rek dañ ko si kii ñu ñëw nag impliqué woo ko boole ko si staffu Ndiaye production bi mu fay def ay rôle yu am solo daanaka euh, boole bi ñu ko boole Ndiaye production amul dal luñ si rëccu. Euh, au contraire yokkute leen si gis moo tax tamit dañuy sant yàlla bu baax si bokk bi mbokk si njaay production bi tamit quoi. kontaan si yow. waaw bëgg si Babacar waaw ñu ngi bëgg si ñëpp waaw. fii nag moom sama problème mooy ñii ñoo ma formé nag boo bëggee dégg-dëgg ñii ñoo tax ñu xam Babacar moo tax damay wàcc Soora Malick a ngi nii moom moo njëkk a jiite group baax doxal fa am solo bu Lamsar yaakaar naa ne Seta xam na kii Nees xam na ko Père Max xam na ko ñi tax ñu xam Babacar ñooyu ñii ñii ñoo ma yóbbu ci rajo yóbbu ma ci tali ba ñëpp dégg ma macha allah maa ngi lay bëgg Sora Malick ancien président groupe baax mais ba tey membre ci biir groupe baax. ñu ngi lay fay Babacar di nuyu képp koy seetaan chute bi di rafetlu teewaay bi fii da baax rek waaw da ngaa gore rek ndax lépp yow la boo meloon neneen tamit du demee nii kon lépp sa jàmbarte la waaw. mu mel ni la nga daan wax rek làmb doy day boole mu mel ni tey booleeti na yéen ngeen ñëw teew. loo ma mën a yokk loo ma mën a wax ci am di ak ak ak ak dund làmb tey. waaw wareef la xam nga làmb li ñuy wax rek day boole waaye du tàqale ndax bu doon lëndëm dañ naan lëndëm bu jur leer la waaw ndax am di suñu rakk la muy ku baax ku am yite te it ku am personnalité ku xam boppam man li ma gën a neex ci moom mooy fi mu dëkk lay représenté te man dama gëm loolu. ah, ah. ne sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan ci réew mi jàmm. mbas mi nga xamante moo yóbbu fitu ñëpp jaaxal ñëpp yàlla eh, mën na ko fi jëlee yàlla na ko fi jëlee waaw moom de dafa fekk ne eh, ñun ci suñu bopp eh, ñun la ndaw yi féetewoo loolu la yàlla dogal am di itam bi mu ñëwee sunu biir liñ ci gis ci moom rek mooy gis nañ nit ku yar nit ku yaru nit ku xàmmee mais surtout nit ku ambitieux maanaam nit ku bëgg dara am volonté Euh, te xam nu mu koy wutee donc nit ku mel noonu nag wax dëgg yàlla am da ngay sawar ci euh, gunge ko mais itam da ngay sawar ci ay mbiram. waaw ba tey defe naa rek comme ni ñu waxee am di doomu parcelle la te defe naa gargi gis ngeen Blindé kon defe naa ne gargi day bu ñu ko gisee du war a jaaxal kenn maa ngi lay ziar. maa ngi lay delloo ziar Babacar. yaa ngi am jàmm. sant bu baax. ak yëngu yi. waaw ñu ngi baax alhamdulilah. Ah, tey defe naa ne bu ñu la fekkee fii kër Amdi Moustapha bi ngénte ku xam Amdi Moustapha xam kook waa parcelle waaye xam kook waa làmb waa am na Moustapha suñu grand la rawatina ñun waa parcelle parce que bépp mbëru parcelle rek am na Moustapha ngi lay kaasal ci groupe yi mu ngi lay kaasal ci média yi pour nga bëre kon bu xewlee ñu jaaru ñu sol suñu daal ñëw ba fii ndokkeel ko ci xew bi waaw. yow daal loolu moo waral teew. waaw lool moo waral suñu teew ba pare dañoo amee relation yi rafet daal macha allah waaw. foo toll ci entraînement yi. waaw ñu ngi ci kawam rek di waaj comme d'habitude di xaar bi ñu làmb jërek ñu bëree ci jàmm yàlla may ana maama yaa ngi koy dégg wala yaa ngi koy gis. maama nag dégguma ko gisuma ko. doo ko dégg wala nga gis. déedéet amu ci moom soxla. amu ci maama soxla. déedéet fi mu toll nii amu ci moom soxla bis bu ñu jàppee bis bu ñu jàppee dat. waaw dinaa xam ci lu mu nekk. ah dégg naa mu ne xaw ma def lay lan ba damm la bis boo dof dof loo ba xaw ma def lan. waaw ah, yàlla nañ ci yàlla yóbboo jàmm rek incha allahu rabbi ñu fekkee ko te tal am na ñu bëri nañ xale la de bu bëgg bu bu bu ne ci yoon. bëgg a dem gënuñoo nekk xale nag loolu moom laay bañ a dégg. ñaar man daal sama gis-gis xam naa ne gënumaa doon xale. am na ñoo xam ne dañ ne. yow yaa dàq bëre ñeen ñi ne moo lëpp sañ-sañ. waaw yal nañ ci yàlla yóbbu ak jàmm loolu xam nga ne Babacar am na ci lu bari ñoo xam ne bu ñuy wax loolu dama yaakaar ne ñetti at yu Garga deux années blanche moo tax. ci côté sañ-sañ. waaw parce que man sama combat yi nga gis yëpp yi ma bëre boo xoolee sañ-sañ moo koy jeexal. Hmm. man mosuma bëre combat deux minutes mosul am. Maama Lamine kon xalaat nga jaay ko sañ-sañ yow. lépp lu ñu laaj ñu ñooy bëre ñooy xeex ñooy def lépp ci incha allah rabbi. kuy daan après. ñu ñooy daan yóbbu ko parcelle cité Fadia ndaan faal ñu. gindaa yi ngeen amee li bés de. Siteu ak Papa Sow ca làng ga ca des. non ñu ngi leen di na fi corona bi jógee ak jàmm ñu dóor leen 2-0 yi leer na ñu amul benn werante ba tey doo sori jàmm gën Modou Lo Ama Baldé ba tey loolu lépp Pikine la ci côté boobu. loolu Pikine la ñu ngi ñaanal Modou roi des arènes bi des ci loxo hmm. waaw ñu ngi koy bu baax. di nag di leen ñaanal taw feex yow it nag kontaan nañ ci ñëw bi nga ñëw si Equivox TV parce que làmb ji moom soxla soxlawoon na la ci quoi waaw macha allah di nuyu DG bi di nuyu waa Equivox bi yëpp di leen di nuyu ñi nga xam ne ñoom laa àndal yu sumbay Ahmed sek booy 15 ans ñoo yor mobilisation bi. moo tax mobilisé moo tax 8 kilos bi ñun arrangé wuñu mu mel ne ki nag defe naa man ñi ma ñëpp janoo kii daf ma ciy gën a neex muy Cheikh Bass defe naa kii moom ku ne xam na ko. fu Babacar ne Cheikh Bass a nga fa fu Lamine ne Cheikh Bass a nga fa Cheikh Bass maa ngi lay bëgg waaw Babacar maa waaw maa ngi nii di sant Serigne Touba waaw sant bu wóor kay tey defe naa waaw di ziar waa waa waa internet yi di bëggee ñëpp képp kuy képp kuy seraan TV maa lay bëggee di la ziar di la jox sa waa jooy tey am day ngénte nga nga jógee Kër saar ñëw fi sa diggante ak am di non am di am di bu la suñu waay la suñu xarit la waaw ñu bokk ñu bokk ay groupe yu bari macha allah voilà xam nga es man es bi sax groupe bëleetunu quoi es bi famille la famille voilà ndax boo xoolee tey tey ñëpp ñëw waa mbuur ñu jóge Mbour ñu jóge ba ba ba fee ba fee si Sinja ñi jóge Sinja ñu jóge ay ay ay kii caaro yi Kër ñëpp teew voilà ku a xam ne es bi ay groupe bëleetunu daal siga moom ak waa làmb itam daa mel ni daal ànd bi yàgg na tey am day ngénte nga teew fi waa gis nga ko man moom fu ne rek maa nga fa nitu làmb dañoo bokk ci làmb moo tax ku xewle rek dañuy def déplacement ak dérangement rawatina am di Moustapha mu bokk ci ñun muy xew-xewu làmb ma nekk fa seen jigéen kon tey su xewlee rek dañuy bàyyi yëpp ñëw wuyu ci ko. waral moo waral teewaay bi ñu dajale woon suñu dërëm ak suñu na ñaar dërëm ñëw pour jàppale ko suñu góor suñu xarit muy Amdy Moustapha bokk si xew-xewu laam te yàqu fa dara nag. wàcc na Saourou Fall maa ngi lay bëgg. maa ngi lay nuyu Babacar. yaa ngi si jàmm. waa sant nañu baax baax. yaakaar naa tey am di xale boo xam ne mu ngi ci biir làmb moo xewle yow en tant que manager nga teew fi loo ñu mën a wax euh, ci am Amdy Moustapha. waaw man euh, mbetteel da moo ci dal sama euh, Babacar parce que yàlla xam na suba sax laa ko jàppoon sàng li ñu wax rek ko ami mbokk am di nekk aussi suñu rak nekk xale boo xam ne xale bu yaru la macha allah wax dëgg yàlla man woo ma dama parce que wax ma ko euh, yàlla xam suba laa ko jàpp mais dañ ma ko wax léegi rek ma daal di ma daal daw ma dem ma parce euh, dama ci am cër daal mun ma jox dara parce que mun tax xewloo bis ma ma man ko wéru ba mu gis ma parce que mooy li gën a rafet parce que rakk la mais xarit la tey nit ku baax la kon nag bu xewle rek ni ñu ko wax ci famille lamb rek bu xewle moom dañuy daal jóg rek jàpp leen. maa ngi lay bëgg. Euh, Babacar maa ngi lay fay. ah léegi rajo ba jeex nag. waaw bi Leewtoo bi arrêté. la rajo bi jeex. man damaa dem Equivox rek ñu àjj. voilà waaw xam naa loolu la jingal da ñoo jig quoi jig nga ñu trop. di la di la delloo ziar en tant que euh, ñu fekk la fii ci ngénte xale boo xam ne mooy Amdy Moustapha di ku ñëpp xam ci làmb. boo Amdy dafa na ay manager a ngi fi ay arbitre a ngi fi ay reporter a fi ay amateur ñëpp a fi donc loolu moo wane ne rek euh, lii image bu rafet la ci lamb parce que lamb dafa war a boole pour événement yu mel nii moo tax dara jarul ñaaw ci biir géew bi parce que ëllëg war nañ mën a daje ku nekk waxtaan ñu waxtaan kafre mais am di vraiment def di ko xam ne euh, dafa sax ak ñëpp jàmm daal te lii moo ko firnde moo waral ñu ñëw teew. dinaa la cof tuuti rek en tant que arbitre Tafa bul dem en tant que arbitre arbitre huis clos ak la daal. bon ci arbitre bi moom lépp benn la waaw ci arbitre bi moom lépp benn la parce que moom règlement ngay topp xool chute am na wala amul war a avertir waroo avertir ci arbitre bi moom amul dara amul benn différence ah waaw jaajëf Babacar. Tapha Mbeur xam nga Tapha Mbeur moom parcelle moom da cee saf sap Tapha ngi ni <laughs> borom yanca maa ngi lay bëggee. maa ngi lay ziar Babacar. ana lu net yi. lu net yi dama ko dénkaane coow lee bari. xam nga damaa doy waar Babacar coow li bari mën na baat ko. mais Tafa foo jëlee yooyu lunette. lunette yooyu xam nga rek parcel moom lépp a ngi bu sell bi. est-ce que xam nga ne conférence de presse bu Boy Niang ba keroog yow la ñu doon waxtaan ndax say verre. waaw damaa jonge xam nga dégg naa keroog mère per Ngagne Diagne nee na Tafa mbër mbër mu doj la te damaa jonge damaa dooj lan mooy jonge dooj doj. ah mais mooy maanaam loo sentir rek nga def ko waaw di def lu baax bëgg sa bopp waaw mbër égal bëgg sa bopp <laughs> dëgg neexul. lii neex lii dafa fees. mi ngi na del léegi mi ngi tox. te dalay maas. <laughs> mbaa du doon courant rek. non mais foog ma courant baa ngi nii chaque jour maa ngi ci courant bi dafa mbër wàcceel courant bi. <laughs> baal ma wàcc courant fu muy wàcc moom. waaw am na Moustapha mi ngi nii moom moom xam nga xeebalul kenn bësam. waaw bëgg parcelle ba jeex. moo tey ñu ñëw ci bësam gis nga tey ñëpp a ngi fi boo ne nit ni ma def ni nga ko defa tax waaw dañ koy ñaanal jàmm xéewal li muy séntu yàlla defal ko ko jàmm ju bari nag waaw ndax moom kenn du moom waaw. am na activité ci parcelle de. non te fu ne ñun lu liggéey dañ ko ko war a di dugal a crédit ndax rajo rajo fépp lay woote di ñu kaasal di ñu défendre waaw bëgg parcelle ba jeex waaw kon ñun tey dañ ko war a delloo njukkal lu mu xew la ñu saf ci sap. waaw gis nga bu arbitre di sax ñëwee di teewal am am ni Moustapha waaw kon xam nga ne am ni Moustapha c'est waaw mais maa ngi sant yàlla daal. <laughs> ana Ada Fass. saa gaan. xoolal xaaral ma am ay añ laay jëlee am ni woyul Sawru Fall daa ni ma war Ada Fass. non ma jële añu gaay yi. Ada waxut ci moom de mbaa du Ada daa tàng. Euh, kii kii kii ngente di ceetal muy am de moom defe naa ne ku ko xam biñ koy xam ci làmb sax ci yow lañ ko xamee. waa am na moom mën naa ne bu ñu ci làmb man maa tax ñu ko tudd ci làmb ndax man moom yàgg na bu ñuy booy. ñoo bokk fu ñu jàngee métier ñaar man maa andi ci làmb andi ko teg sama wet mu nekk ku baax doon borom baax mën a sonn trop ci ay jaamur waaw moo tax xam nga rek moo tax su xewlee foog lépp luñ mën a jàpp dañ koy bàyyi ñëw teewal ko boo gisee su ba léegi damaa simeeku jàpp ci affaire yeeg ci cineeg ci lépp ndax loolu mu ma ko ji ndax day day def lu mel noonu sama bis kon nag tey boo amee bisam foog ma defal fay ko borom ar waay balla ma sa ñaan Tafa Darame waay balla ma sa ñaan Tafa Darame waay bis bi moom Tafa Darame yooy kay ba tere ma waay ba tere fa xew kay ba tere ma waay góori Sénégal kenn ñaawatu fi ku fi xeesu danga ñuul waay ñëpp rafet ma ma madame madame lay ziar. dafa ne ci làmb macha allah tey waa làmb yëpp ñu gis ay mbër ay arbitre ay amateur ñëpp déplacé wu ñëw ay manager yow en tant que soxnaam loolu ñu mën a wax si moom. ah xanaa di kontaan si moom rek parce que ku baax la jàppale nañu yërëm nañu yiir nañu ku baax la daal amuñ fayam waaw amuñ fayam. ana bi. bébé mooy fi góor la. waaw gis nañ tey muy samay mbokki bopp samay mbokki làmb samay dëkkandoo si koñ bi ñëpp si nañ ma may sant ñëpp rek di gërëm ñëpp euh, di santaat yàlla bu baax te naan lii moom nekkul xëy na lu ma defal yàlla moo tax yàlla defal ma ko moo tax dañ koy dañ def kàddu sant rek ko di sant aussi soxna si dëgg yàlla ku baax la ku ñu ku ñu ku ñu bëgg la ku ñu yërëm la te ku ñu déggal la xam nga ndax xam na yenn nit yoo xam ne sëy ak ñoom yombul franchement parler ñun xam nañ suñu bopp quoi kon bu mu nee Nigériens yi rek franchement xam nañ ne daal waaw nit ku baax dañ koy ñaanal sëyam bii euh, yàlla defal ko si ay saalihin ay saalihaat ay muslimina muslimaat ay muminina muminaat barke alxuraan barke borom Tuuba. looy wax waa làmb tey. waa làmb mbégte euh, di ñaaxaat ñëpp rek di leen wax ñun mi la làmb ñoo far suñuy mbër bu ñuy daje mun nañu rayante mais du question rayante à vie dañuy rayante pour benn ngoon rek après lañ parce que li tey gox bu nekk am na ko fa jógee ñëw may sant ji fi teew ak ñi fi teewul ñëpp di leen wax ne xëy na ñu fi teewul jot moo amul rek quoi di santaan ñëpp di gërëm ñëpp. kontaan ci yow. waaw liggéeyu Equivox tam noo ko gisee ak Babacar. waaw mais kontaan yow ndaanaan nga yow foo dem da ngay innové dañuy waxaat rek ku mel yow ak Lamine ak yeneen gars yi fi nekk ñu joxaat leen cër ndax yéen da ngeen di dem si si ngeen di si site fekk ko un yóbbu ko dix ndax da ngeen am dèjà seen i ñoo xam dañ leen di seetaan ñoo xam dañ leen bëgg a pare fu ngeen dem da ngeen leen di yóbbaale kon day jaadu gars yi joxaat leen seen cër ndax yéen liggéey bi da ngeen koy jox àq dañ lay santaat di la gërëm di la encouragé naa la liggéey bi yombul waaw bég si yow Babacar ñoo far ayca doom yaay